il faut dire juste la vérité point c'est tout. si on avance un peu sur ce qui s'est passé aussi euh, semaine bi euh, ci ci Sénégal di ngeen dem ba assemblée nationale. ak li xew euh, ci Yewwi Yewwi <laughs> askan wi ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa taxaw ah. démissionné parce que dañ leen génn ci bureau bi ñu ko def moom mooy si li seen i kàddu waa waa Pastef ñoom ñoo nangu seeni i poste est-ce qu'aujourd'hui acte yi nga xamante ne Yewwi mi ngi koy teg à l'Assemblée nationale ils ne font pas ce qu'on peut appeler jël le pouvoir jox ko Benno waaw en tout cas parce que l'influence de Yewwi est totalement réduite. bi bi bi leen di nit ñi di voter. Mhm. législative ba ñuy am ñu intercoalition bi am quatre-vingts députés c'était pas pour ñu leen di décevoir ñu am yaakaar ju ñu amoon ci ñoom ne ñii nen comme que dañoo am ci ñoom yaakaar nañ leen teg ci conditions yoo xam ne dinañ mën a. régner au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. parce que dem nañu ba am quatre-vingts députés donc c'était vraiment facile pour avoir la majorité au niveau de ça malheureusement premier jour bi la ñu raté le coche. Mhm. parce que ils ont présenté trois candidats à pour pour quatre-vingts députés mhm. donc ça veut dire que yow au départ xamoon nga ne mënoo jël ndam li benn ñu jóge fa aussi ñu fexe ba bokkatuñu yoon ñu dem ba ci biir aussi ñi fa desoon bokk yeewi askan wi ñu dem ba ci biir aussi xuloo mbiicoo jàppal bàyyil ku nekk di tam sa morom dëmm ainsi de suite ba mu indi lii léegi nag moralité mooy malheureusement dañoo nekk opposition boo xam ne ils ne se s'unissent que sur l'essentiel dañ waaw xam nga dañuy bàyyi essentiel bi fële di topp ay accessoires parce que nit aussi boo boo amee adversaire boo xam ne c'est un adversaire redoutable mhm. nekk au pouvoir da ngay fagaru am am ay moyens mhm. yow da nga war teg stratégie yoo xam ne di nga ko mën a d'abord déstabiliser ensuite di nga mën a organiser ta marche vers le pouvoir mhm. mais disparité des forces là dispersion des forces yi ñu def du leen jural dara te fi mu toll ni ils ont perdu au moins quatre postes des postes vraiment stratégique stratégique vice-président président de commission questeur donc ça veut dire que ils n'ont pas une vie encore réelle sur l'Assemblée nationale mm-hmm. ils seront encore la à jouer le faire valoir te du leen amal benn njëriñ parce que pouvoir aussi boo ko bëggee da ngay da teg ay jalons yoo xam ne dina la ko permettre képp ku lay indil doole mm-hmm. nga indi ko mais dispersion des forces yi am parce que boo rappelé wu en deux mille aussi kii Abdoulaye li Amath Dansokho ak les autres de la gauche xam ne ne ñoom ils n'ont en emprise sur le réel sénégalais. Mhm. Sénégal yi gëmuñu leen Sénégal yi Ablaye Wade lañ gëm ñoom gëmuñu woon abla Wade mais Ablaye Wade c'était la solution du moment. Mhm. dañu dem France na ko sëñ bi yaa ko yor. góor gi yaa ko yor kay diriger ñu gérer ñu mu gérer leen kay am ndam. bien vrai après il y a eu ce que ce qui s'en est su. Mhm. comme toujours rek nos nos politiciens là. c'est des querelles de clocher quoi. Doudou Coulibaly est-ce que l'opposition n'a pas fait preuve d'immaturité politique. <laughs> mais yow euh, Assane. Mhm. il va li xale yi di wax immature ah. li xale yi di wax immature. mooy Yewwi dans son ensemble mooy immature. <laughs> <laughs> et très libre voilà et j'ai signé une tribune lundi passé sur ça tribune bind ko mu leer nañ j'ai été attaqué de toutes parts am ñu ma mere mais man xam nga Assane man defuma pour di neexal nit ah je suis pas comme ça sama xalaat dama koy wax personne ne peut me terroriser même Aliou Sow ne peut pas me terroriser donc li ma gis. mooy ñoom sax dañu waa dem ba soxorante seen biir ñoom ñaar ñëpp nag man je mets tous les deux camps dos à dos ñee ñëw nañu le reste de Yewwi pour sanctionner taxaw perte quatre postes nangu perte quatre postes pour sanctionner taxaw maanaam bañ ko jox taxawu dem jox ko Benno Bokk Yaakaar. su fekkee yow li ngay wax dëgg la si yow xanaa nga joxoon ko taxaw moo la war a gënal nga jox ko Benno Bokk Yaakaar mais waa taxawu tamit ñoom tam dañoo soxor parce que en quittant le groupe ñoom tamit xam nañ ni on va on va priver le reste de Yewwi de quatre postes moo tax ma ne immaturité politique mm-hmm. mais nag ñoom xamuñu xamuñu lu ñu xamul sénégalais yi jéppi te seen immaturité politique boobu xam fu mu leen yóbbu mais tey bu amee deuxième tour nag waa léegi est que am na man ku am fitu sénégalais bu am fitu bokk si yi am beneen candidat bu yeewi bu fël nga ñëw taxaw naan ma kaa ñu votel kii parce que moo fi gën soo ma ko waxee di nga dégg parce que tu peux pas rester tous ces mois la ngeen di tamante dëmm xam nee naa leen li ngeen war li ngeen di def dafa ñaaw ngeen na local yi si élection locale yi ñun ñoo fi gën képp keneen ku génn si ñun pinton nga doo patriote bëggoo réew mi yaa ngi dégg ngeen demaat législative réitérer la même chose ne Aliou Sow bi ma àndal nii tey si si yeew yi mooy patriote kii moo bëgg réew mi kii moo rafet kii moo jub demaat leen si discours yi ñu daan def ñoom ñëpp ñun ñoo fi gën ñun ñoo gën ci réew mi jox leen ñu réew mi ñu jox leen quatre-vingts et quelques députés contrebalancer la majorité mécanique que le pouvoir avait mais ñii tey tey moi je m'imagine que ñu amoon tey majorité à l'Assemblée nationale imaginez mais kon tey dëkk bi mu ngi si guuta et ils ont donné raison à Pape Diop qui avait dit que man sama expérience politique li ma may mooy ñii bu ñu leen joxee majorité le pays sera bloqué mais jox nañ ko dëgg parce que ñoom avec leur querelle de chapelle là mais ñii ku leen joxoon tey jii réew mi mais toj fi. d'accord loolu nag xam naa Aliou Sow tu seras très content. Hein? mais man je suis comme ça ku mer baax na ku kontaan baax na Aliou sur cette sur cette question là est-ce que lii du am ay répercussions si présidentielle bi pour l'opposition mais c'est une évidence mais pourquoi muy citer Pape Diop parce que moo moo moo moo moo nekkoon balance bi mais man man maa ko njëkk wax Pape Diop <laughs> mais yéen xanaa doole ma dem vaar chaque jour moo ko mhm. mais boobu dañu ne man dañ maa yónni man dañu ne man man dañ maa yónni. non yow moom déglu ma non non non déglu ma xoolal moment boobu ma xoolal alxuraanul karim moment boobu may wax loolu ne ko c'est une coalition d'hypocrites ils se détestent pour le Sénégal nekkuñu ci benn axe programmatique Sénégal taxu leen jóg li leen intéressé mooy ñu gën a fël ñoom ba pare wàññi euh, euh, doole Macky Sall à l'Assemblée nationale mais du ñu dem ils vont déstabiliser l'Assemblée nationale baaxul ci ñoom il faut qu'ils se réorganisent autour d'un programme bu leer nañ ci bitum sénégalais ñu pare programme boobu ba élection présidentielle yi sachant que ñoom dinañ xam kan la jiite ñu ne loolu c'est pas vrai dañ maa yónni mais yow Doudou Coulibaly lu tax nga wax mais man li ma ko wax moo ëpp ko Pape Diop wax Pape benn yoon la ko wax man wax naa ko dix dans des émissions muy petit déj muy émission du ñu doon wax nee nañu nee nañ waa ji man leen yeewu bi dina tas par force parce que ñii dëgguwuñu du ñu dem parce que Sénégal taxu jóg dañu bañante seen biir c'est juste que rek il faut que l'autre descende moo leen intéressé mais entre ñoom ils se détestent et wallaay ça va ubbi leen seen bët ngeen di xool maa ko waxoon duñu ko laaj da dem ngeen xool ko w mais la fa jël la non jarul tàccu dama bëgg rek non xam nga lu tax xam la moo la moo si nar a nar a selal sama xol bés bu ñu que dañ ko war a dem seeti d'accord léegi ma xam la moo jarul tàcc xam la moo ma si nar neex sama xol ñu ne au moins parce que man moment bi ñuy wax ni dañ maa yónni mais man ku may yónnee nga may yónnee a def ci ay calcul parce que euh, ni ma xalaatee demeewul ma yor. allez on n'a xam nga. n'a pas besoin de te justifier tu prends des positions tu les assumes et on dara metti na ma nag parce que xoolal léegi Pape Diop la ñuy cité man du ñu ma cité man alors que c'est moi qui l'avais dit et je l'ai dit plusieurs fois mhm. et quand je le disais on me disait tout le monde était parti nañu wax dafa changé mhm. mais waa dafa waxoon dëgg boobu ñu ne waa dafa changé li ma doon wax def na attaqué genn wàll mais pourtant dañu ne man damaa changé waa changé ci lan waa loolu ma doon wax noonu moo am tey ji ni waa léegi kan moo changé ñoom ma may ma ay ma comprendre ni ñii dañuy tricher ma wax ko en assumant mes responsabilités et puis naturellement moment boobu gis ngeen li ñu wax te tey gis ngeen li wax tey moom la Doudou Coulibaly di wax fii léegi Doudou li ngay wax ni wax naa ko daawu jéeg <laughs> ok alors euh, euh voilà Sénégalais nag xam leen benn affaire Jacques Chirac juste pour terminer euh, Jacques Chirac voulait uh-huh. voulait de Juppé mm-hmm. il disait Juppé c'était le meilleur d'entre nous mmh. mais Juppé ay des problèmes avec la mairie de Paris ay faux billets d'avion ay xawma d'avion yu mu waroon yu illégalement il n'est plus devenu président de la République il s'est fait décrédibiliser alors que Jacques Chirac en voulait à mort finalement dañu obligé pour mu dem mairie Bordeaux parce que xajatul woon Paris pour vous dire que nii des fois euh, François Fillon avec à cause nañu mën a kenn au niveau de PASTEF. xam ni même le dernier dernier du PASTEF peut-être. allez on termine avec ça c'est que c'est le projet par force waaj dina rek mais xanaa waa ji moom. mooy yàlla xanaa lan moo am solo. le projet moo am solo. projet que moom boobu. merci Aliou mën ci biir ngeen continuer ko. Aliou merci waaye par force te loolu moo baaxul ci réew. Sow merci beaucoup. Euh, j'aimerais euh, ñu wax en une minute pour chacun euh, de de de Amadou qui prend de l'avance sur ses adversaires est-ce que du lii moo taxoon le chef de l'État bàyyi au poste de premier ministre. en tout cas bu la ci kenn naxam. boo nekkee gouvernant parce que na. boo nekkee gouvernant tu as deux chevaux à conduire. le cheval politique et le cheval économique. donc ci biir loolu da ngay am ay opportunités. Mhm. am tu as les moyens de l'État tu as aussi. les opportunités de faire de tournées. Mhm. parce que boo xoolee Amadou Ba bi muy mujjee def tournée Saint-Louis c'était en mai 2023. Mhm. qu'est-ce qui explique en fait encore et puis bu la ci kenn nax ce gouvernement la qu'on en place c'est un combat politique mmh. gouvernement politique destiné à travailler pour la victoire de Amadou Ba. Doudou en mun na nekk couteau à double tranchant mhm. parce que tey jii moom mun na jël les moyens dem ne tournée parce que nee na xam nga tournée économique la bu ñëwee gouverneur bay saluer ñu ubbil ko taliweeg yooyu. Mhm. mais après il aura en face quoi la vie chère. Mhm. te loolu adversaire bu redoutable la. Aliou. adversaire bu redoutable la la vie chère. Mhm. mais la vie chère adversaire bu redoutable pour tous les hommes politiques. ceux qui sont au pouvoir yoo xam ne assumer wuñ seen responsabilité et ceux qui sont dans l'opposition euh, assumer wuñ seen responsabilité dans le sens que ni ils n'ont pas fait encore de proposition pour wane ni bés bu ñu jëlee. d'accord changé diw lan lañ fiy teg qu'est-ce qu'ils vont faire véritablement. ci ak sénégalais yi pour que vie bi mu cher lan la tegal lu leer. loo xam ne sénégalais mënuñu ko man j'ai besoin d'être convaincu par rapport à ça. donc d'un côté ou de l'autre ils sont tous pareils. Aliou